mbokk ñu leen di Sow dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën a fës ci boppu xibaar yi ñaxtu moom la dawalkatu taxi ya ne ci aéroport international Blaise Diagne door ci subatel gi ngir euh, métitlu euh, na chauffeuru clando ya di doxee euh, ci anam yu dëppoo ak yoon ca googule AIBD da ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi jàngoro coronavirus tàmbali na law fépp ci Europe la xew ca Italie doon lu yéeme lool ndax ci diir gu lu toll ci ñeenti téeméeri ak juróom-ñaar fukk ak uh, yu teg uh, fukki doomi aadama uh, ñaar ñoo ca faatu ca googule gox di Italie daañ ci dikkat na mu gën a yaatoo leneen ci xibaar mu ñeel li nga xamante ne mooy élection présidentielle 2024 jëm ci tamit tànneef gak njiitu réew mi Macky Sall ndax dina mun a doon candidat ci yooyu la wote daa ngeen ci dégg taxaw seetlu Bakary Domingo Mané di taskatu xibaar analyste politique mbokk yi bu nekk ci seema yi nga am ci baaru bëccëg gi baatu askan wi mbokk yi ñu leen di nuyu ñu fas yéene doore xibaaru digg bëccëg geek eh, chauffeur Sané ci aéroport international Blaise Diagne jafe-jafe la ñu xëyee tey soobu ci grève bu ñaxtu gaare seen taxi la leen metti mooy euh, chauffeuru clando ya nga xamante ne saay su ne fay liggéey ci anam yu dëppoowul ak yoon ba tax na xel xalaatul ñu weel liggéey ba foofee ci AIBD Mouhamadou Lamine euh, Badiane ak euh, ñi nga xamante ni ñoom lañ ca feggool jot nañoo ñaxtu tey daañ ci dikkaat nu mu gën yaatoo ci yeneen xibaar ca na mu gën a yaatoo lu ci jàngoro ji di coronavirus ak na mu tàmbalee lawe ci àddina gi rawatina ca Europe yàggul dara gannaaw bu mu duggee ca itali lu toll ci ñeenti téeméeri doomi aadama euh, jàngoro ji di coronavirus dugg na leen lu toll ci fukk ak ñaar euh, seen bakkan yem ci saasi foofee ca Italie dañ ci teewlu euh, gëstu ak taxaw seetlu amadu Issa coronavirus mu ngi feeñ en 2019 ci mois de décembre mën nañ wax ne mu ngi wéy ci àdduna bi yëpp ndaxte boo seetee lu toll ak ñeenti fukki réew yoo xamante ci àdduna bi maanaam coronavirus bi feeñ na foofu buñ jàppee sax bilan officiel organisation mondiale de la santé bi ko def boo seetee ci àdduna bi yëpp daanaka dal contaminé nañu leen te nag onze donc foofu ci Chine la te nag loolu nekk na loo xamante lu bëri la ci réewum Italie fukk ak ñaari nit ñoo xamante ñoo fa faatu donte sax am na tamit ñeenti baax tamit si weeru février bi rek yàggul fanweer ak juróom benn nit ñoo xamante ne amee nañu foofu feebar bi ñu ngi leen di faj ci hôpitaux yi nemmeeku lañu tamit boo xamante mu ngi am ca bi ca Grèce ca réewum Iran autorités yi tamit ñoom nee nañu daal ko daqal nañu bépp circulation boo xamante mu ngi am ci biir réew mi ndaxte foofu coronavirus bi bëri fa lool tax sax ba kii di vice ministre de la santé amee na feebar bi mu nekk nag loo xamante ne tey jii école yi université yi ñoom ñëpp ak centre culturel yi daal a feebar bi lu tolloog téeméer ak ñeent fukki nit ñoo xamante ne amee nañu foofu feebar bi ñoom ñëpp fu mu toll yi jël nañu yoo xamante ne ngir nag tere bépp nit boo xamante ne mën nga fa ñëw pour nag dem jéem màkk wala tax di pèlerinage loolu nag na ba ñoom autorités yi nañu loolu yëpp bokk na ci aar nit ñi ci wàllu feebar bi ci France ñetti niveau cas am nañu foofu donte sax boo seetee tey ji téeméer ak juróom-ñaari fukki nit yoo xamante ne amee woon nañu feebar bi fukk benn ñoom wér nañu ba dem nañu dox seeni soxla Sénégal nag donte sax feebar bi amu fii autorité nag ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ngir nag aar askan wi bu baax a baax donte sax poussière bu mujj gi askan wi tiitoo nañu lool ba jël seeni i matuwaay ay ay masque ngir nag protéger wu waaye nag ñu ngi def daal seen li ñu mën daal pour que feebar bi bañ am fii ci Sénégal ci suñu réew ndaxte feebar boobu day reyaatee ngoog yàlla ñu la musal ci googule e, feebar di coronavirus e, yàlla jële ko ci mim réew ak àddina Euh, fépp ci àddina gi daan ci dikkat na mu gën a yaatoo leneen ci xibaar mu ñeel jafe-jafe géopolitique beeg APR euh, coow la ne fa cooboy sullante mbooti ak ñuy doxale ci waxtu bi le euh, du dara lu dul bëgg a nëbb seen mandat geneen goo xamante ne njiit réew Macky Sall war na ko mun a dagaanaat atum 2024 bu ñu sukkandikoo ci njàngatu taskatu xibaar bi di Bakary Domingo Mané ay kàddoom ci jokkoom ak xoxandong dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo ab campagne ngi ni ñu jagleel ko panneau yi defaraat seen panne woto laata ñu tegul ci tali bi waa Sénac feggoog ñu yëngu ci wàllu transport euh, ca googule département bu Rufisque dañ ci teewlu Najib Sagna. si autoroute à péage bi nag 6 pour cent fi am nag. lu bëree si ay pneu yu yàqu la loolu nag waa Sénac ñoo ko wax si daje boo xam ne nañ ko def ak journaliste yi tey ñoom nag loolu tax na bañ tey ñu def ay benn séance campagne bu gratuite boo xam ne nii képp ku am oto te bëgg jaar si autoroute à péage bi mën na fi jaar ñu xool oto mi loolu nag ñetti fan lañ koy def Ibrahima Senghor mu yore karange si autoroute à bi. sécurité usagers yi daf ñu ñor trop sécurité usagers lim ñu ñoree moom moo tax tey euh, ñu organiser kam deuxième édition campagne de vérification si affaire pneumatique seulement maanaam wàllum pneu yi. Euh, pour inciter population maanaam waxtaan ak usagers yi ak population Sénégal yëpp ñuy bàyyi xel ci seen pneu parce que lu am njëriñ la si diggante euh, tali bi ak oto bi te aussi euh, su fekkee ne pneu yi baax na moom mun na la assurer ne yow mun nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm. moom mën nañu wax ne 6 pour cent déjà si accident yi ñu am yëpp. pneu yi accident yi ñu am yëpp mu moo ko indi donc muy statistique boo xam ne lu jéggi dayoo loo xam ne mën na ñàkk pneumatique nag du loo xam ne tamit si oto rek la yem ndaxte vérification pneu yi nag war a nekk loo xam ne nii bés nekk nga ko nar a def. dañu ñëw ànd lëkkaloo ak autoroute de l'avenir pour euh, sensibiliser les usagers par automobilistes yi pour leen jox la maximum de conseil pour ñu gën a xam ni pneumatique du loo xam ne dañ ko mën a jàppee rek comme accessoire dafa nekk loo xam ne bu dul moom oto bi du daw donc lu capital la mooy assurer sa sécurité sécurité ñi nga àndal ak sécurité ñi ngay dajeel. donc dafa nekk loo xam ne donc lu jar a entretenir lu jar a sàmm la xam lu muy tekki boo mënee janook sa pneu nga xam ni boo ko liiree lii lii lay tekki nga mën a xam kañ nga war a contrôler sa pneu nga war a mën a xam kañ nga war a corriger sa pression xam ñaata nga ci war a def pour daal en quelque sorte gën a yokk sa sa karange ci euh, ci mbir moom ci yoon. doo nag waa nag nañ def liggéey boo xam ne nii. Euh, ñetti pàcc lay nekk te dañ dugg si yeneen pàcc yoo xam ne dafa laal lu mel ni yeneen façon kaaraange fii si Rufisque dañu sañal tribunal Fajir suuf euh, am na ca technopole bu Pikine euh, bokk na ci ñoo xamante ne dañoo bëgg euh, ñàkk seen suuf joxoñ nañ ca baaraamu tuuma ña ca bëgg a jaay doole dossier googee nag mujjee na wutali fu mbaxana doone benn Moussa Diop mayor kàdduk njaboot gañu bëgg xañ suuf sa àdduna ci micro Théodore Semedo. dañ may néewal doole depuis 2017 sama papa moo gaañu 2017 bi mu gaañoo ay 5 heures. agence bu ko yor ak entrepreneur bu ñuy wax Cheikh Gumbala ñu woo ay minuit une matin pour ne ma sa papa gaañu dafa a gàcce depuis 5 ñu complot sama benn rakku papa yéeg si kaw jël papier kër yeeg bagages yi ak écran plat yi télé yi ak yu bari frigo yi yóbbu ma ñëw laaj borom biti borom biti bi ne mooy police moo fi woon ak sapeur def nañ constat bi ma dem police Pikine def constat pour laajte renseignement yi ñu ne wax yow wax nañoo am lu wax yow ñu dem ba si digg bi quelque temps euh, Cheikh Gumbala woolu ma ak benn euh, sëriñ benn sëtu sëñ fàllu mu mu tout tànk sëñ Fallou woolu ma sama kër këram kër Cheikh Gumbala ne ma il faut nga ñëw foofu ñu waxtaan pour man leneen la ñuy waxtaan sax ne ah dafa am lu xew kat dañoo wax Cheikh Gumbala yow da am ay rakk yu nekk Angleterre man ak Angleterre man am naa bientôt 38 ans nga may wax ay Angleterre xanaa kay sam papa bu amee amee rakk dama ko wax. wala ma wax ko samay mbokk wala ma wax ko ñu ma gën a jege mu ne ma ah renseignement yi jot nañu ko fan yi paase te nit bu gaañoo il faut ñu ko pour mu tàlli ma ne ko ah mais loolu bu amee kay yow wala ma ay preuve jàng naa xam na ma liir wala ma carte d'identité bi war na kat ñii wala extrait xale yoo xam ne kat ñii sama papa moo leen jur nangu li ma woon benn preuve nangu li ma benn kayit dañ ma tooñ parce que dem bu ñu yee dañoo indi ay nervi ay policier ay gémi toroxal ma toroxal sama famille di jaxeexante ak ñoom di leen dóor ay liif waxtaan nañu ba sonn def constat di woo procureur bi di woo bonne volonté yi ñëpp ñëw jàppale ma si dossier bi nii ndax jaaxle naa xaw ma nu may def mu ne bi leen defee loolu pare man damaa yëwaat ak sama sañ si dëgg ba ma dugalaatee bagage leen yëwaat wala ñuy woo police mais tegaatuñu seen tànk démbalee fi ne je pas en sécurité ma mujj jël sécurité bu may xam ne moo yor jaas yi naroon mooy gor grave bi nii may ñaan gouvernement bi di ñaan peuple sénégalais képp ko moon taxaw di sëriñ damay plainte dès demain damay def plainte ndax dépp maa ngi xaar huissier pour def constat si li ñu def démb ma déposer plainte bi au niveau du procureur départemental aftu euh, di kër goo xamante ni mu ngi yëngu ci àllu dem ak dikk jot naa jébal jumtukaay ak ay euh, tamit euh, matériel yoo xamante ne ay liggéeykatam ya ne ca Caaroy ndaje googu nag mu ngi doonoon ci teewaayu Njogu Malick Dieng di transporteur jot naa indi leeral lu sooke ñaxtu liggéeykat yi booba léegi ci seen wàllu contrat dañ ko ci teewlu ci micro Théodore Semedo. danoo ñëw tey jii pour jox leen matériel boo xam ne dana tax ñu mën a doxal seen liggéey ci ni ñu ko bëggee. mu nekk ay oto ak ay moto loolu moo nekk tey jii euh, ñu war a daje fi woo président GIE yëpp ànd ko ak conseil bi nga xam ne ñoom laa taxawal nii ñu war a jël matériel boobu nag jébbal ko directeur tey pour ñu mën a dugg ci liggéey waaw liggéey bi liñ ci am yaakaar pour mu soqali liggéey bi mooy euh, dana leen dimbale ci ñu mën a def contrôle liggéey bi ni mu ware euh, dana leen dimbale itam ñu mën a jokkoo ak régulateurs yeeg Euh, chef de ligne yi ak euh, contrôleur yi ak itam même chauffeur si euh, receveur yi su ko defee bu ñu demee di leen fekk ci gaar yi ñu nekk danañu gën a mën a waxtaan déggoo bi dana gën a mën a am ci liggéey bi. nga jàmbat bi moom moog liggéey bi ñoo ànd ndax lu toll ni juróom-ñeenti junniy nit ak lu topp ku leen yor di leen liggéeyloo xam nga ne njàmbat dana ci am. rawatina am na ñoo xam ne condition ya ñu leen teg baax na mais xëy na am na ci ñoo xam ne condition ya ñu leen teg nañ ko bëggee demeewul noonu kon il faut que njàmbaat am waaye ñun daal lii suñu bëgg-bëgg ak suñu taxawaay mooy képp koo xamante ni kii da ngay nekk ci afti di ci liggéey wala nga nekk ci cap trans wala organe yi nga xam ne ñoo ca sës muy mec trans di trans wi dana ñu fexe ba ku fay liggéey nga nekk ci condition yi nga xam ne moom la liggéeykat yépp di doxal su boobaa ñu ni tam ñu doxal loolu euh, bokk nañ ci suñu biir te jotaguñoo am ay contrat ñoom ñëpp ñu teg leen yoon woo xam ne ñun ñëpp danañ leen mën a signaler ay contrat ñii ñu embauché leen ñu àndandoo di liggéey mën a soqali société bi mu jëm ca kanam Sénégal ni mu ba ñu mën a am terrain ñun suñu joxee terrain ñun danañ ko toppatoo ba la fa war a nekk lépp ñu def ko fa su boobaa ñoom yooyu jàmbat yëpp dana féete boor leneen ci xibaar ci wàllu paj mi kuréelu syndicat bi di CUS bootaay liggéeykat yu yëngu ci wàllu santé eh, bankoon seen loxo booba ba léegi xayma nañ nag la sooke woon ñaxtu ga ne luñ ci doon séntu yëpp am nañ ko ndax jot nañoo gàllankoor bërëb bu fajukaay yu bëri waaye nag ba léegi saafaraamagul eh, ci seen tawat yawoon dañ ci teewlu Cheikh Seck ma jiite googule kuréelu syndicat jokkoo nag eh, Fatma Tasey li ñu ci doon séntu dafa dafa jégg suñu day parce que tey jii mën nañ système de santé suñu bëggul pratiquement l'ensemble des blocs opératoires du pays je bien mes mots nekkul peut-être hôpital principal amul bloc opératoire booy dem fii tey au Sénégal ba nekk dans les zones les plus reculées ba nga xam ne tey jii mën nañ ko opérer sans pour autant que ñun ñu parce que la plupart mënoo mënoo mënoo opérer malade te nelawaloo ce combat là les anesthésistes sont bien concernés et puis les anesthésistes nekkuñu fa pour nelawal malade benn chirurgien ñeme opérer c'est la vérité def diagnostic te diagnostic bi sémiologie la sémiologie bu ñu koy wax mooy gis naa ni ci yaram mi ngi tàng boppam ngi metti ma xalaat ni bii feebar la mais feebar yi ànd ak yaram yu tàng ak bopp yu metti xam nga bëri nañ mais pour nga xam ni lii la il faut nga dem ci laboratoire ñu jël deret bi ñu xam ban microbe moo joxee affaire boobu ma dama ne état amatul ko gars yi daanañu am am dégg-dégg am réaction pour mun a waxtaan mais léegi gis ngeen ni soit dañuy def la sourde oreille wala ñu a ñu a jouer ci say nerf quoi cest xeex bi natt ko ba naa la deux mille dix-huit doon commencé woon bi ñuy commencé dañu bind lettre wax leen ak information pendant un an recevoir ñu boobu yëpp ñu ngi def de travail de terrain def nañu grève le 31 defaat nañ door ñu def lu gën a tuuti loolu am na loo xam ne nag de façon graduelle am na loo xam ne ay armes yoo xam ne utilisé wuñ ko dans notre clip déposé nañ préavis préavis boobu expiré jeex na ça veut dire neexee mën nañoo génn yëg si nañu ci xibaar i ñeel euh, bitim réew dañu wutali Guinée Bissau laaju ci élection yañ fay waajal RDC yi tamit euh, dañ fa dem ba ca Cuba dañ ci teewlu Sena Bassar ca Guinée Conakry mbir ya gën di bari coow ci lu jëm ci wàccaam élection législative ak référendum Guinée yeey war tànn seen député ak tamit joxe seen xalaat ca constitution ba maanaam charte réew ma gannaaw coppite ya ca Alpha Condé indi yooyu lee wote nag ku jëkk politique ba ànduñu ca benn yoon ndaxte ñoom jàpp nañ ne ndëgg sërëx la bu leen Alpha Condé la ngir amal la ñetteelu mandat yi yile élection Congo kii di Martin Kabuya bokk ca Front Commun bu Congo bokk itam ci UDPS moom nag daal di nan ko déglu gannaaw ndaje ba dox ci diggante ak ay jegeñaale ci diggante ak ay jegeñaale ya vice premier ministre bu intérieur mënu dénk wàllum sécurité ca Congo Martin Kabuya lañu koy toppee mooy final ab takk der gouverneur ba dëggal ni kii di Martin Kabuya tudd nañ ko ci ay dossier yu ñu jeexale xibaar bitim réew teew Zimbabwe giirub dundam yépp ki di Gabriel Mugabe doon na ku nu ràññee ci xeexal askanam bokkoon tamit ci ñi xeex ngir Afrique mën a moom boppam rawatina ci li ñeel indépendance su réewam moom doon itam ku ràññeeku ci xeex lépp lu niroog jàmm wala waaso ci xeet muso bu woon nag ci ab xeex ngir bañ a juge ci réew moomu nga xamante ni mu woon nag ci ab xeex ngir bañ a jóge ci réew Zimbabwe nga xam ni moo ko jiite woon ci diirub fanweeri at ak juróom-ñaar waaye ci xeex boobu nag lajjoon na ca gannaaw ba askan ba xare seen tànku tubéy ngir jëlee ko fa. mbokk yi ci noonu yegg si nañ ci ñetteelu xaaju xibaaru digg bëccëg gii feggoog euh, léegi ak Abdou Khoudous euh, Diallo euh, dañu dem ca studio B fekk ko fa ak ganam Abdou Khoudous Diallo ñu ngi lay nuyu Abdou Khoudous. Abdoulaye Bo. am nañu mbégte lool feggaat la fekkaat la tey ci googule studio B ñu war a feggoog yow ci xibaar yi lañu jàpp ne moo cay gën a fës ci nga am yenn a jukkil ko askan wi. bokk na ci li nga xamante ne moom moo xew jamono ji ci kàddu yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, nguurub Macky Sall <laughs> ñu jàpp ne moom mi lee wax na mën a euh, laajaat réew mi ni ki atum 2024 euh, <laughs> danañu ko gis ci bile dossier mi nga xam ne si Cissé defal nañu ko bu loolu weesoo itam ci même cadre bi ki nga xamante ne moom mooy Bakary Domingo Mané nga xam ne mhm. xam-xam màcc na ci wàllum euh, saytu mbirum politique mhm. euh, dana sekk ko waxtaan ci téléphone ak Moussa Sène mu daal di joge xalaatam ci li nga xamante ne euh, moo xew ci bile parti APR nga xamante ne xëccoo bi bëri na ci biir biir parti dinañu jeexale bile mi journée ak Euh, yéen kay nga xamante ne sama séeréer bi moo ci jaar. jërëjëf euh, jaamu séeréer bi Abdou Khoudoss euh, Diallo ñu ngi lay jaajëfal. jaa ñu ngi lay jaajëfal ñu la nee nag defar ndànk ndax séeréer yi dañuy teel a xiif. waaw am na ci solo dinaa ci bàyyi xel. jërëjëf jërëjëf euh, Abdou Khoudoss euh, Diallo moo ñu doon tënkal la mu am yenn jukkil ko askan wi ci ñetteelu xaaju xibaar yi bu neski see lay doon mbokki lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi mbokki di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu gon toog jàmm ak euh, programme Batu askan wi